والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullah dinaa mbokk jullit yi ñoo leen di leen siyaare di tàmbale ci nuyoo bi ci sëñ Muntaxa moom sëñ Maamoor Pakal mi fi teewal xalifa général des mourides ak sëñ Moodu Xabaan mi fi teewal daara yëpp lay wax rek bañu ci daara Tuubaa yi ñu leen jot li ab nuyoo akub siyaar xëy na kàddu yi moom dama dama mënut a ñàkk wax waaye dama koy joyal si ñi ma bokk liggéey bi rek daa demee ne boo bokkee nit ab liggéey am at ba at ma jeex doo ma ñàkk yëpp kàddu waaye samay kàddu daanaka rek kàddu yi sëñ yi doyoon na ci kàddu yi sëñ Cheikh Awa Balla Gueye lañ ko jox di sant rek ñi ñu seqal liggéey muy comité scientifique bi tàmbali sëñ Xaadim Ndiaye bu ma ko tuddee tudd sëñ Moussa Diom Ndar dafay daal di yóbbu ñëpp xanaa teg ci waa c 3 ba tey ñoom itam ñu yor comité organisation bi mm-hmm. wax dëgg ñoom itam taxawaay bi ñu am euh, am na solo lool ci liggéey bi ndax mën naa liggéey bi lépp rek ñoom la joy te toqi ci yokkatuñ ci ka ci ka ci njëkk ba ka ca gën a suufe amu ci kenn kook rek yokkan nga ci demee na noonu nag am na ñuy teew ci ñoom ak ñooñu liggéey bi tax dañu maa teew si ne ñëpp waaye ñii teew si ñoom ñoo leen teewal ñoom fañ teew ñu teewal fa ñu teew si wut waaye liggéey bi ñoom ñëpp ñoo ci bokk yëngu di ko doxal bañ mën a si fii ci comité organisation bi su ma ñëw su ma tuddee Dame Touré mu daal doy ak euh, Mamoun Fall ak euh, Mahmoud jàng kon Dame yi nga xam si moom ba tey ñoom moo leen jiite su ma ko tuddee rek mu doy ni ma koy waxee toujours rek ab taxawaayam ak ku yittewoom liggéey bi. ak sawar ci ak bëgg ko fu mu ko weesu na ko ba tax na man mii lu ma dañ ma ji tudd rek waaye lu ci ëpp rek moom noppal la ma ci ndax maa moom ëpp jor gi te moom gën a woyof te nangu gi itam li am soo te dafa koo def muy moom muy Mamoun muy Mahmoudane xanaa nag di ci teg ñi xam si ñoom te décor bi ngeen gis ñoom ñoo koy liggéey at mu jot ñoo koy liggéey te kenn du leen gis kooku bu ma tuddee ba tey Basiru Mbeng ak sàlloo li jóob ba tey moom itam ñoom demoon yu bale ñëpp waaye daal C3S moom luñ kenn ab nuyoo di bàyyi sama morom kii ñëw ci liggéey bi ma xam bu réunion amee dina ñëw wala bu tournée amee dina ñëw xam ne ñëpp mënuñu ko waaye xam ne ñi ñëwut ñu ñëwut ñoo leen teewal ci ci jotaay bi ñoom itam fañ ne di liggéey ñoo fa teewal ñi ñi ñëw kon nag ñoom ñëpp ñu leen sant xanaa di sant euh, ñi nga xam ne si ba tey nag. ñoo toppatoo ñiy liggéey muy lu mel ne jigéen ñi de ñi toppatoo yëfi ngi yéen itam xam naa ni ñu sa liggéey moom mën ñu ñàkk tudd bu yow Touba di waa sëñ ñu ngi leen sant ñoom ñëpp ak waa kër bi nee Touba lii liggéey bi ñooy toppatoo ñu liggéey bi boo ñëwee fii Dakar itam muy Fatim Mbàkke ak ñi mu koy séqal moom ñëpp itam euh, ak ak ak maam ci la ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax a baax xëy ñoom loolu taxul ñuy def li ñuy def ndax liggéey bi ñoom ñoom la war ku ci nekk ñoom la ci nekkal waaye nag li may wax rek boo demee ba at jeex daal ngay wax ah kenn ku ne bëgg ñu xam ne kii mi ngi ci liggéey waaye moom kooka loolu tax koo am na solo eh, xanaa di ci teg suñ kilifa yi daaw tudd na leen sax ndax sa njiil tudd na leen waaye muy bàyyi bàyyi bàyyi ñaxal. ñoo si mooy kilifa kër gi ak Baye Serigne Mbacké ak Baye Bolle ñi fi teewal mooy mooy Mayasin di suñ mag ak Mohamadan ñoom ñoo fi teewal Baye ñaxal mi kilifa kër gi ndox li ñuy def lépp rek seen diggal lañu koy defee bu ñu noon bu ñu ko def duñu ko def sëriñ bi li muy def lépp bu fekkoon ne ñoom ñoo ñuy ay kilifa am ne moo ñoon lii kat bu ko def ko itam ñoom ñu bi waxee kon dañ ko waaye ñoom lu ñu ne ànd nañ sa ñun ndax xam nañ ne ñu nekk rek lu baaxal lu ñu nekkal la waaye ñoom yëf yi seen yëfa loolu tam ñu koy yëgal euh, mbooloo mi di ba tey di wax suñu rakk yi xaalis itam nag dañoo dugg ci liggéey bi di ci jàpp muy seen jiddi àlla sek ak ñi muy àndal ñoom itam ngeen sant bu baax a baax ndax liggéey bi noonu lañ ci ñoom itam jàpp ci ba xam ne liggéey bi seen liggéey ñun ñëpp dama yaakaar ne jooñu tudd sax ndax liggéey bi ñoo ko moom kenn ko rek moo baax rek nga bëgg kon nag buñ sañoon bu ñun tudd sa ñoom waaye dañ xam ne moom ñun ñuy sëqa liggéey ba xam nañ ne li def baax na ñu leeral ko nit ñi loolu lañ jublu wasalaamualeykum wa rahmatullah jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatullahi barakaatu jërëjëf sëñ Baye Fallou Seck moo doon joxe kàddu remerciement yooyu euh, nga xamante ne moo bàyyi ci C3S anta bi ni'mati rabbika bi majnun